أهلا waxtaan bi kum njiiti réew mi Macky Sall fa war a de wuy ji yoon leeral xaalis bi Khalifa Sall wax ne jot na ko ci wàllu kees dawaas ba du samay kàddu sa Seck moo ko wax ci les éco yéen a kaay ci vox populi Idrissa Seck nee na yoon fa war a woolu njiiti réew Macky mu dem ca tribunal ba taxaw wax askanu Sénégal kees dawaas xaalis bi Khalifa Sall wax na jot na ko ci nit ñi xam lan moo ca am ak lu ca amut jege ñaare Khalifa Sall yi yokk ci ne Abdoul Mbow xaalisu kees dawaas ba a kaay Walf a xatte xalifa sàll bi kay kilifa yi ngonk yaa ngi weeru la turbine yéen a kay ne état bu sénégal kay weeru nañu ayaw seet ndekete ñoo wàllu xaalisu kees dawaas bi yëgoon nañ ko xam ko ba bindoon nañ ko ci journal officiel bi yéen a kaay bi dañuy kay weeru nañu ne géej ji wal fa dir yéen a kaay yokk ci na ko démb nag atteb xalifa sàll ba awakaay xalifa sàll yi daal ñoo jàpp nee ko yow man sa kilifa Macky Sall wax ak nga may jéem a li ma lay xamal na mooy yow man aw jot wax ak yow ndax sikkim nga gëstoo la yóbbu gëmoo dara bëggoo tamit dara su Macky tisoolee nga ne ko yarhamukallah lu mu la sant nga man aw ma jot direct info te mooy yéen a kaay na ko Macky kay lii xañ ci ay mbiram neexut ndax jàngalekat yi mere nañu lool Macky ba démb amal nañ doxu ñaxtu ca diwaanu Thiès tey ci àjjuma ji ko jege opposition bi ñoo nar a amal doxu ñaxtu ca Ndakaaru zoom yéen a kaay na ko ma yokkal la ci ñeen fukki junne étudiant ñoom it nar nañoo mere Macky ndax fañ leen nar a dàq génne leen fa ñu jàngee ndax bor bi état bi yoral école privée yi te fayu leen ko 24 heures yéen a kaay na neexut ba neexut waaye Macky mi ngi ci ay jafe-jafe fa nar a xuus ci safara soo xam ne ba moytu yéen kay di ñu xamal na réewum Chine fas yéene na dimbale Sénégal dugal fi téeméer ak ñeent fukki milliards source a naka ma yokkal la ci am na ñeenti téeméeru biis oto yu chinois yi nar a dimbalee nay leer la lu leer ba yegg ca naan ñi ja si ngi li doomu Ablaye Wàdd ji fesmaan bi ñu ko joxoon jëloon na juróom-ñaari milliards ngir jënd wàllu oto yu rafet te cher yéen kay bi nag ne ba léegi yëfi leer leer ne Nouakchott Mauritanie Aziz moo ko teeru nganu ñaari fan muy dox tànki jàmm dal diggante Sénégal ak Mauritanie la Soleil yéen a kaay ko xamal ba pare nag yokk ci ne ngan gii fa tombek rek ñu rey Ah, oto yi guinéen na duñ ko joxe rek fit ja jóg coow la na ayoo ba jàppante ba xam benn duwaañe génne fetalam ngir xupp leen nopp tiire ca kaw gaañ a dal ca kawam pour nangu fetal ga bal ba rëcci daal benn doomu réewu Guinée mu dee ca saasi le quotidien yéen a ñu ko xamal ci la Guinée mer jàpp sénégalais ya fa nekk dañ leen a dóor ba ñu bëgg a dee rajaxa tojate seen oto ya enquête yéen a ne Guinée bañ raj